황놀래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 nabiyun waliyun mursalun umiyun harabun wasila mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di am mbégte nag lool tey ñëw ci dëkk bi nga xamante ni mooy daabaay gu mag gi nga xamante ni ah képp koo xamante ni rek gis nga fi nu taxaw xam ni dëkk bii dëkku nitu yàlla la dëkk dëkku borom barke la waaye dëkk la boo xamante ni képp ku fi ñëw xam ni Serigne Mor Ndiaye daa bàyyi li ko ñoroon rek mooy yàlla ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak lislaam tegoon tànkam yi rek ci baynal fardi wa sunna ni tey nag ñu ñëwoon ànd ak ki nga xamante ni mooy Serigne Abdoul Khadir Ndiaye ñu gën koo xam ci Serigne Djili Ndiaye moom Serigne moon Ndiaye daa di porte parole njabootu Serigne Mor Ndiaye daa bàyyi gi yëpp xam naa ne ci kanam tuuti danañu seq ak moom ak jataayu waxtaan. ak xalifaam bu baax bi nga xamante ni moom lañ fi fekk fii ci Daabay muy Serigne Habibou Ndiaye moom Serigne Mor Ndiaye Daabay nekk fii nag ci tund wi nga xamante ni rek li nu wër ci dëkk yi nga xamante ni dëkk yu mag la yun mën a tudd mooy Kébémer Ndar Gànjul dëkk yu mag yooyu yëpp fa tabaarakallaahu yàlla dogal na ñoo wër fi nga xamante ni mooy Daabay ki nga xamante ni sëñ Mor Ndiaye Daabay fi la nekkoon doon fi liggéeyal yàlla waaye doon fi wéetal sunu borom subhanahu wa taala ñu bëgg a ànd ak yéen nag tey ci ëttu kër diine ji fas yéene fee def reportage bu yaatu boo xamante ni ci kanam tuuti danañ leen woon li ñu fiy jëlee ci wàllu waxtaan ak kan mooy sëriñ Mor Ndiaye Dabaye fas yéene buñ jógee it fii dinañ am yeneen i dëkk yoo xamante ni sëriñ bi demoon na fa sanc fa ñu woon leen ko ci kàttanu yàlla bu ko defee rek ngeen topp nu ci seen émission bi di ëttu kër diine ji incha allahu rabbi première partie bi bëgg ànd ak yéen moo nekk fii ci Dabaye gu mag gi di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 Ah, di jéggulu ci kàddu yi di yëkkati kàddu yi tam ci turu xalifa bi ah, di ñaan suñ boroom subhanahu wa taala mu yàggal ko fi lool ñaan suñ boroom subhanahu wa taala mu woyafal yan bi ah, ba mu tooy guddal aw fanam wéral ay cëram ba li mu bëgg a liggéeyal Cheikh Mor Ndiaye Dabaye waaye juróom ba suñu defal ko ci lu kawe njortam yàlla mën na ko sañ na ko yàlla na ko def bi jaahi nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ah, tey nag ñoo ngi fii ci dëkk bi nga xam ne mooy buqaatul mubarak di bokk ci barabi Cheikh Mor Ndiaye Dabaye nga xam ni comme ni ko Cheikh Abdoul Khader Ndiaye waxee di porte parole sëñ bi nga xam ne mooy ay loxoom ay tànkam mooy léppam moom la jël liggéey bi dénk ko ko ca fële ca dëkkam bële ca kees nga xam ne daaka na lépp wépp liggéey moom la jël liggéey bi teg ko ci ay loxoom yi moom it yàlla na ko suñu borom dëgëral kattanal ko ba euh, mu mën koo defee ni ko sëñ bi bëggee yàlla man na ko yàlla na ko ko defal bi jaahi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te itam yaakaar naa dina ko defal ndax euh, jàmbaar la lool wax dëgg yàlla dëggu na te na ko sëñ bi bëggee lépp itam maa ngi cay def kam te lay kattanam ah, yàlla na ko suñ borom defalu kawe njortam bi jaahi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah, mu ànd ko ay rakkam itam sëñ ah, Cheikh Chidia Cheikh Abdoulahi sëñ Omar ak uh, serigne basirou Basiiru serigne modou ci si uh, ñu wa kër ga ñep ñu sëñ Moodu Fall njaboot sëñ Moodu Fallu serigne Cheikh Fall njabootuk uh, sëñ Abdullah, ak njaboot gi ñep Euh, àndandoo nañ ñoom ñëpp takk seen ndigg jàppale ko ci liggéey bi nga xam ne moom la bëgg a liggéeyal Cheikh Mawone Ndiaye Dabaye euh, te yaakaar naa ne yàlla dina leen ci may ndam incha allahu rabbi ndax teg nañ ko ci alxuraan ak sunna yàlla na leen yàlla kartana ba euh, liggéeyal Cheikh Dabaye liggéey bu kawe seen njortu yàlla na ko yàlla def bi jeexi nabina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni ko Cheikh Abdoul Khader na nag ni fii la Cheikh Dabaye defee jihaadu nafsi kon Dabaye ngi nii bokk ci tàmbalik sëriñ bi bokk ci tàmbalik sëriñ bi ndax Seex Daabaay mën na ni gëneewul àddina fii Ah, ndax uh, waaye juróom ma nga ma nga gane àddina fële ca uh, kër Njaga Seen ma fa jógee ñëw kër maam Maram ay at yu néew fa la jógee ñëw fii nii yàgg fi lool def fi jaadu nafsi ah, fii la àggee ci suñu borom wax naa la ne fii la gisee rasulullahi jaaratan bila yaqasatan fii la gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye bu dee kanta gis gi nag dëggantaan muy feeñu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ca kër maam Maram la ko jëkk a defee fa la ko feeñoo ci xobu xixam am na ñu ne xobu kànja waaye xobu xixam wi uh, siinuta am nañ ci ay délire yu leer nañ ñu naan ko ak xëy màgg waaye ñii naan ko xëxam fa la ko jëkk gisee ca kër mamaram waaye nag jëmmi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi laa yàq satan fii la ko gis nga xam ne dara benn kiiraay doxul digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci daabaay gi la ko defee jihaad yi ray boppam rey bakkanam te ba yëgatul bànneexu àddina ak bànneexul lenn loo xam ne si ni mooy dox digganteem ak yàlla fii la ko defee ba dégg mu naan mut li hawaaya habli hawaaka suñ borom na nga rey samay bànneex ba dootuma yëgati banneexu addina ma dootuma yëgati bànneexu lekk dootuma yëgati bànneexu naan waaye boo rey saay bànneex ba dootuma yëgati dara nag ma may yow habli habli hawaaka nag ma may li nga xam ni li nga xam ni moom nga bëgg nga jël loole may ma ko ta rey sama bakkan li ma bëgg nga xañ ma ko te may ma li nga bëgg loolu bëgg a wax noonu kon fii la ko ko fii la ko fii la ko defee fii itam la ni yaakaaruma kenn ku dut yàlla suñ borom te ci moom laa wéeru moom laa jàpp itam ba karam ma àgg ci moom laysa ilaa an artaji siwaaka loolu la wax noonu laysa laysa ilaahi laysa ilaahi laysa ilaahi artaji siwaaka yow suñ borom yaakaaruma kenn koo xamee ne si ni ku dul yow la ragaluma kenn koo xam ni ku dul yow la kon na nga jël li nga xamante si nii mooy say mooy li nga bëgg nga may ma ko na nga ko bëggee fii la ko euh, defee nii fii fii la fii la amee loolu la ko doon taalife te fii la àgg ci suñu borom subhanahu wa taala ah, xalifa bi tam gis nga ko fii la nekk di liggéeyal waaye juróom bi na ko seetaan liggéey fii la ko dëhaloon Ah, ba mu fi joge itam wàcc ko fi itam liggéeyam ba mu bi mu doon liggéey itam noonu na ko Cheikh Abdou daan liggéeyee ah, wàññiwu ci dara da ko yokk itam ba dégg nga dëkk bi tey fii mu ak si mm, ay jamono ci ginnaaw ku fi ñëwoon ak tey jii da nga xamante si nii liggéey Cheikh Daba itam ah, taxawul mi ngi mi ngi dox te xëy na incha allahu ci kanam daan gën a xam loolee incha allahu itam Ah, eh, njaboot gi ñëpp takku nañu di liggéey comme na leen ko Cheikh Dabaye digaloon ndax xam ne liggéey mooy mooy doxal lislaam mooy doxal ci doomu aadama ci lay dundee itam ba am dund goo xam ne dund gu dund gu gu yàlla gërëm la moo tax mu digaloon leen naan leen na ngeen na ngeen na ngeen nungoo liggéey ba bind leen ay xasida yoo xamante ni da leen wax liggéey lan lay jariñ bind na xitma mooy ah, dum ah, xos xitma te wali làkk junna minal bawaari wastan làkk janna mooy xasida xitma bind ci ahlu xidma bind ci xidma ci boppam bind ci ahlu xidma bind ahlu xir mooy ilaahi indi isbun qaadimuuna lanaa xubban fi saatika yaa man jalla subhaana ndax bi mu nekk fii wéet na waaye amoon na ay ñoo xam ne ñoo ko daroon nekkoon ci kanamam doon ko liggéeyal dar ko doon ko liggéeyal liggéey boo xam ne bu mucc ayib la ba tax mu naan suñu borom kat am na ay am na benn kuréel boo xam ne bàyyi nañ seen yitte bàyyi nañ seen i seen lépp ñëw toog ci man di ma liggéeyal ilaahi indi xisbun qaadimuuna lanaa yàlla ne ko loo ci mun xubban fi saatika yaa man jalla subhaana xanaa bëgg sa jëmm ji rek moo leen dugal ci di ma liggéeyal waaye nag du dara bëgg leen dong bëgg sa jëmm ji ak sopp sa jëmm ji képp moo tax ñu bàyyi seen lépp ñëw di ma di ma liggéeyal yaa man jële subhaana yow mi nga xam ne ëpp nga lépp lu ñu lay jiiñ yàlla lépp loo jiiñ yàlla ba yaakaar ni yàlla la la toll yàlla dépassé na foofee maanaam yaa man jële subhaana lu mu bëgg yàlla hab jëm am rabbi maa yarjuu min karamin wal xayr wal bisar ridwaana kon liñ yaakaar ba tax ñu ma liggéeyal lañ lañ yaakaaroon na nga na nga leen may lu ëpp lañ yaakaaroon ba ñëw fii di ma liggéeyal lañ yaakaaroon yaaka jooy na nga may lu dépassé seen yaakaar jooju da nga may da nga may lu dépassé seen yaakaar joojee benn ma wax liggéey lan lay jëriñ mooy xidma xus xidma te wali lakka junna minel babaari wuslatan lakka la yow mi nga xam ne da ngaa bëgg ci yàlla yow nga xam ne da ngaa bëgg a mucc ci musibaak balaak alkande yow mi a dem ci yàlla yow mi nga xam ne da ngaa bëgg a dem aljanna yow mi nga xam ne da ngaa bëgg a da ngaa da a noppalu ëllëg tey ëllëg kaay ma wax la ni ngay def ba ba am ba am ba am loolee ñu ni ko lan la ñuy def mu ne xus xidmata wali lakka junna minal bawaari waslatan lakka janna jëlal wutal sëriñ motub sëriñ liggéeyal ko def ko muy sa kiiraay su ëllëgee dina la yóbbu mooy jàpp sa loxo yóbbu la ba fer daw si ah, boo wutee wal sëriñ motub sëriñ liggéeyal ko def ko muy sa kiiraay boo ëllëgee mooy jàpp sa loxo yóbbu la ba aljana waaye nag ba mu koy wax itam bëggul ko ko liggéey waaye dafa xam ne loolu mooy yoon bi nga xam ne ci nga a jaare pour am am am dund addina am dund alaxira sëñ motub sëriñ la wax nag dum xaadima li cheikhika xalli siwa ba defara di taqu saada nee na nga sax liggéeyal sa sëriñ ginnaaw ba farata yi jàllee waxul ni na nekk ci farata yi ba bàyyi di liggéey sa sëriñ ba bàyyi di farata waaye na nga def farata yàlla yi def sunna si yonente bi sallallahu nga continuer di liggéeyal sa sëriñ ginnaaw ba nga defee loolee ba pare soo defee loolee bu fekkee ni yaa ngi def sa far say farata di def say sunna di sax di liggéeyee sa sëriñ bu matub sëriñ nee soo ko defee de taqu saada da nga téye ak texe da nga téye ak texe ci sa loxo ci sa ci sa ci sa loxol bopp bi hmm? waaw daati ne mut في حب الأعباد مت في حب الأعباب saa tabsila hadiyatan lahum bi taksila Cheikh Dabaye mu ni na nga rey sa bopp ci sopp soppe yi ñi nga xam ne soppe yàlla yi lañ na nga fexe bëgg ba bëgg leen mut fi xubbil ahbaabi na nga rey sa bakkan rey sa bopp def toutes les façons ba bëgg bëgg sopp bëgg soppe yooyee mut fi xubbil ahbaabi saa tabsila hadiyatan lahum bi taksila na nga leen di ñaqal di leen ñuqil na nga leen di ñaqal di leen ñuqil Hmm? bi daa takk si daata bul yel toujours daal na ngay sax di liggéeyal gaa yu baax yi waaye na nga sax itam di leen jël say addiye di leen ko jox ànd si xol bu tàlli ak sawar ci lool bañ a tàyyeel soo ko defee dañ soo defee lii ma la ñu ne ko ñan ñoo ñan la ñu war defal ñoon mu ne humu la si xamaul anfasa xata xawaw min rabbihim taqdisa xata xawaw min rabbihim taqdisa ñi ñu war defal loolu mooy gaa yi nga xam ne not nañ seen bakkan rey nañ seen bakkan dem topp yàlla di ko jaamu bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di jaamu yàlla rey seen mbakkan ba am ak sell goo xamante ni doxal seen diggante seen borom ba suñ borom sell leen mbaayee la leen toppatu leen dara mun ne ñii lañ war a liggéeyal ñii soo leen liggéeyal tajid amaamaka kulla matluban yaa xaadiman lil awliya al xuraba bu fekkee ni def nga lii ma la wax ni day su ëllëgee yowmal lépp loo xam ne yaakaaroon nga ci ñoom nga ci ñoom ba topp leen doon ko sàkku ci ñoom doon ko day tajid amaamaka di nga ko fekk ci sa kulla matlubin lépp loolu sàkku yaa xaadiman lil awliya al xuraba yow mi nga xam ne yaa doon liggéeyal gaa yi nga xam ne ñoo jege seen borom kon yàlla na yàlla dimbali ñu def ñun dégg ak topp ban mën a liggéeyal gaa yu baax yi mën leen a bëgg Euh, ba itam liggéey bi xamante nii moom la ñu naal di ko liggéey Cheikh Daabaay suñu borom defal ñu wér ak gudd fa bañ mën a àggal liggéey bi fa ko Cheikh Daabaay bëgg wala fa ko yëpp bëgg incha allahu ko yàlla defal defal ko ñëpp képp kuy liggéeyal euh, sëriñ yàlla na suñu borom defal lu kawe sa njortu euh, ba li nga bëgg nga def ko incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh lii nag dafay wane ni rek la Sëriñ Tuubaa doon wax ca bayitam ni zurriyatan tayyibatan tujaddidu ndax jën na bi yal Mustafa taj tahidu yàlla defal na ko Sëriñ Mor Ndiaye Dabaye ndax sët bu mel nii toog di wax ci kanamu ay waajuram te li muy wax lépp mu teg ko ci xam-xam teg ko ci alquran teg ko ci sunna Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa tabaarakallaahu loolu rek moom la Serigne Mor Ndiaye daa bàyyi bëggoon te yàlla may na ko ko tey kon noo ngi ñaan wax dëgg yàlla sëñ Maam Cheikh yàlla na yàlla guddal fan wi te yàlla barkeel tey ñu ñëw nag fii ci daabaay gu mag gi nga xamante ni bu ñuy tudd daabaay fii tax ñu naan daabaay ñëw toog ak Cheikh Abdoul mi nga xam ni mooy buntub kër ga ndax dañuy wax ni wa aatul bu yuuta min abaabiha booy dugg ci kër da ngay jaar ci bunt ba moom mii mooy buntub kër sëñ Mor Ndiaye Dabaye ndax moom la ñu jël teg ko sëriñ Abibu moom la jël teg ko digganteem ak nit ñi muy muy ay loxoom di tànkam di bëtam yor kàddu kër ga fa tabaarakallaa waaye nag jël loolu lépp laxasuwaay doonaat bàyyi faalu sëñ Mor Ndiaye Dabaye nga xam ne dara ñu ko lu dul liggéeyu sëñ Mor Ndiaye Dabaye bi fas koo wone fas yéene cee jàpp fas yéene ko yëkkati ñoo ngi ñaan yéene jooju mu am yàlla na ko ci yàlla jàppale ci barkeb Seydina wa sallam waaye ci barkeb sëñ Mor Ndiaye ni tey moom la lañu fas yéene waxtaane war a wane ay tey ñu ngi ci première partie nekk fii ci daa gu mag gi xam naa ne yeneen barab yi ñu war a dem ci kanam incha allahu rabbi suñu yeneen jataay yi dinañ leen ko won fas yéene nag ànd kook sëriñ Abdul Xaadir mi nga xamante ni rek moo yor kàddu kër ga ñun ñëpp ñu déglu euh, sëriñ Abdul Xaadir ci ndigalu sëriñ Abibu di ñaan yàlla sëriñ bi mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax lii ñu am ci moom tey kat wax dëgg yàlla jafe na lool waaye nag dañuy wax ni yitte rek mooy ubbi bunt moo waral tey ji yitte ji prestige def ànd ko ci sunu ndigalul kilifa muy Pape Doumbia yàlla dogal mu mu mu jàppandal yëf yi ba tey jii ñu ànd ak Cheikh Abdoul Khadir ñëw fii moo may tey lii nu am ci sëriñ bi kon noo ngi ñaan yàlla yàlla yàlla gën koo barkel moom itam te barkel site bi bu baax a baax a baax ñëpp ñu déglu Cheikh Abdoul Khadir moom itam mu am lu mu nu dolli ci waxtaan wi su ko defee yeneen jataay yi di leen mën a yaatal yeneen waxtaan yi nga xamante ni moom leen waxtaan ci Serigne Mandiaye Dabaye kon Cheikh Abdoul Khadir bismillah salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu kon mbokk wax ji mat na sëkk ni ko sama doom di waxee maam Cheikh amatuma si dara lu si yokk ndax day wala ni li ma doon ñaan yàlla yàlla may na ma ko te mooy dem ba am njaboot goo xam ni wóolu nga leen ci liggéeyal seen maam te liggéey bi liggéeyu xam-xam la ku dégg ni mu waxee da nga xam ni kii ku yàlla jox xam-xam la waaye xam-xam bi tamit yar bee ko raw loolu ma séddee ko si jëm ji xëy na wax ji mënatu la bare sëriñ bi wax na ko léegi bare bi ñu nekk tey di daabaay bare bi mooy pàkku sëñ moo njaay daabaay di pàkk boo xam bu yàlla barkeel la fii la sëñ moo njaay daa waxe ni bu fi ñëwee góoru yàlla yëpp dama leen dëpp doole ndax bëru sell bi bërëb bi fu nekk jàng na fa alxuraan bërëb bi bind na fi ay téere bindal ko sëñ Touba yóbbul ko ko njaareem du ko sëñ Touba masaa joxe këyit du ko ko bindloo si Jurbel booba dara ñëw fii bind ko delloo ko ko kon bërëb bi bërëb bu yàlla barkeel la jëmm ji nekk fi nekkoon fii ne di sëñ Mounirou Rabaye moom la sëñ Touba daa wax ne ko ëllëg sa njaboot kenn du la si dimbali fii la sëñ bi sëñ sëñ daa wax Mor Ndiaye Mbaworo ndax tund bi yëpp ay taalibeem lañu nekkoon jëmm joo xam ni sëriñ bi wax na ko léegi jaamu yàlla am yëpp fii la ko defee woon kon dañuy ñaan yàlla si sëriñ bi mu ñaanal ñu yàlla ñaanal ko waa Prétis ba fépp foo xam ne bëgg nañ fa àgg yàlla na àggale leen fa. sàmm leen sàmm seen njaboot gi di leen xamal ni sëriñ bi bég na si yéen waaye ñoo ngi leen di xamal ni bëgg-bëgg sëriñ bi si mission bi muy dox mooy njaboot gi yëpp nekk benn mooy àddina bi yëpp nekk benn bëggante soppante ni ko xaadim rasul daa ñaan yaa allahu yaa muqallibal qulub qallib qulubana anil uyub wa axrina bi hubbi kulli muslimin loolu dadaa ñaan yàlla sëñ moo njaay taabaay lim daa moom wabil muminina ixwanan julli yëpp ñooy son bokk loolu mooy mission sëriñ bi nag bi ëpp doole ci ay mission mooy ñëpp nekk benn àndandoo loolu moo tax bi mu ñëwee mu ni na ngeen góorgóorlu jàppale ma ci sama bëgg-bëgg mooy yéen ñëpp na ngeen ànd nekk benn bëggante soppante ni ko sëriñ bi bëggee woon mu ne fas yéene nañu topp si ginnaawam liggéeyal ko nekk taalibe nekk ay rakkam nekk jëwëram liggéeyal ko ngir sëñ Mor Diarra Baye lépp loo xam ne bëgg bëgg na ko fas yéene nañoo taxaw ci loola amal ko lépp loo xam tamit bëgg ko fas yéene nañoo sore loola ñu koy ñaanal yàlla yàlla na yàlla yàggal ko fi guddal fanam ba fi mu bëgg a àggal liggéey waajuram yàlla àggale ko fi yàlla na yàlla barkeel ko sàmm ko sàmm njabootam si barke waajuram bu jigéen wa bu góor ma asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf kon ni ko sëñ bi waxee noonu la fii mooy Daabaay di dëkkub Seex Daabaay ndax bañ ko laajee noo tudd dani Mouhamed laa tudd kuy sa baay Ahmad foo dëkk Daabaay ah, Mouhamed ibnu Ahmad al Adbaabi neewul ni Thiès laa dëkk neewul ni Dimasxa laa dëkk neewul ni Louga laa dëkk neewul ni Kaolack laa dëkk neewul ni Dakar laa dëkk waaye dana man daal Daabaay laa dëkk Daabaay la adresse boppam كتاب عين النعيم وبلوغ المرام في ست رسالات على خير الأنام لعبد الفقير محمد ابن أحمد الأضباوي ne moom daabaay daabaay la daabaay la kon fii mooy baasu Cheikh Mounde Ndiaye daabaay fii la adressé boppam ne fii laa dëkk gis nga barab yooyu ñu demee jàkka jooju noonu lim fa jàng ci ay kaami alxuraan kenn xamul nu mu toll kenn mënut a takk lim mu fa jàng alxuraan lim fa def ci salaatu ala nabi kenn mënu koo takk ba xam ne mu toll moo tax daana wax naan suuf daabaay sii de mandi na alxuraan waaye mandi na salaatu ala nabi moo tax daan wax fee ne mooy barab bee fee ñu jógee nii ah, daan wax na ku fi ñaan yàlla tam saa jàngoro joo am boo fi ñaan yàlla suñu borom dina ko saafara aajo joo fi ñaan suñu borom itam suñu borom dina faj aajo joojee moo tax nit dina jóge fu ne ci ci réew mi ñëw tibb suuf si delluwaatee foofu it ak lu mu sori sori dañuy jóge Ndar Ndakaaru Ziguinchor Kaolack fépp day ñëw si tibb si dem delluwaat ci seen barab yooyu te deew bu fekkee jàngoro la bu ñëwee dina saafara bu fekkee aajo itam bu ñëwee dina faju kon fii tabarakallahu euh, mooy dëkk suñu moon Ndiaye daa bàyyi te suñu borom may na ko fi lu ne tey itam dëkk bi dëkk buqaatu dafa bokk ci buqaatul mubaarak mooy bak barab bi nga xam suñu borom barkeel na ko te itam suñu borom def na fi ijaaba lu fi nit ñaan itam dina nangu kon itam euh, ñu bàyyi ko xel bu baax a baax xam ne fii dëkk suñu moon Ndiaye Baay la te dëkk ci bokk ci pàkk yu barkeel yi ah kon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala alhamdulillah